Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum ah suñu mbokku suñu gars yi man it daal fan nga toll si koor gi. aa ah, kon ñu commencé maa ngi gis démb rek maa ngi jaar buntu Pikine gis benn waa joo xam ni mi ngi toog si suuf euh, ànd ak sol seen caay yu faax waaye man saa yi man def leen ne yéen ñàkk jom si weeru koor bi ñu ngi dóor seen laax di lekk timis loolu ñaaw na mi tey eh, nañu bàyyi li def dafa ñaaw askanu suñu li mel ni wooru koor ay pa ay mag nekk si mbedd di lekk di naan di tox di di joobaa jonge dafa ñaaw dañu bàyyi li def weeru koor weeru nattange la weeru jàmm la mais gis ay magum jëmm sol seen caay forox ba ñu gën nekk si di lekk di wan def loo xam ne dafa nekk loo xam ne dañ ko jox gëddëm ful ko fayda la mais ñi gis Sénégal bii xoolal xool caay bu ñu fekkee da ngay gis koo xam day naan ñeex ba miir ay ñàkk jom ñàkk fay la topp si supp yéen fanaan yi ngay euh, añee bu dee ko te yaay ñàkk jom góorgóorlu lañ te bàyyi ngeen di def dafa ñaaw man de weeru ko dañ ko war a selal ay askan suñu gaal ñu ñàkk jom am na ñàkk fay dëkk bàyyi ngeen def dafa ñaaw dañuy war a war bii. aduna bi dafa jeex te ngeen bàyyi ngeen di def te gis euh, ay suñu mbokku jigéen ñi nga xam ne ñuy jaay restaurant te gis benn jigéen ñoo xam ni euh, ñàkk jom ko bëgg dee di jaay ceeb bu dégg ba ca biir weeru koor bi boo teewee rek c'est que digale sa borom jaay ñàkk jom ñàkk fulla topp leen seen ba demee incha